mi ngi noonu donc ñu daal di ñëw euh, daal di dugg ci li nga xamante ni moo di actualité yi ñu daal di koy dooree ak bu baax bi Walf Quotidien lune bo alors Walf Quotidien li nga xamante ni def nañ ko euh, ci seen une. invité des rédactions de Walf mhm. euh, tas di Thierno ab euh, euh, Thierno Assane Sall ma naan Thierno Abdoulaye sax mhm. Thierno Assane Sall met les pieds dans le pétrole alors mu nekkoon waxtaan bu yaa boo xamante ni seexoon na ko ak rédaction bu Walfadjri TV ak Walfadjri FM alors nee na le contrat avec Total est mhm. pire que celui avec Timis wax na aussi euh, entre autres nee na entre le protocole de Paris et le contrat final il y le jour <laughs> et la nuit bëri na daal ay révélation yu bëri yu mu yu mu yu mu yu mu ci wax wax na itam il y a deux Abdou Latif Coulibaly <laughs> oui certainement maa ngi bàyyi xel ci Abdou Latif Coulibaly mhm. euh, avec son son bouquin euh, Wade l'opposant au, au pouvoir mhm. Abdou euh, Latif Coulibaly qui défendait certainement les euh, intérêts des populations donc euh, du, du du Sénégal mhm. Abdou Latif Coulibaly qui justement euh, a perdu son euh, si je puis le dire hein, son intellectualité sa véri euh, euh, euh sa la, la, véracité, la véracité de ses propos. Mm -hmm. Abdou Abdou Latif Coulibaly qui a complètement changé Abdou Latif Coulibaly qui est justement au jour d'aujourd'hui du euh, côté du pouvoir mm -hmm. et qui a justement euh, oublié justement euh, ces propos d'avant euh, propos yi nga xam ne c'était pour défendre les populations c'était euh, pour pour pour pour pour pour pour dire la vérité par rapport à à cette malgouvernance qui existe depuis depuis depuis des années avant Abdou Diouf jusque Abdoulaye Wade et et bon bah il s'est rangé aux côtés de de Macky Sall donc il n'a aujourd'hui que le droit de se taire moom Abdoulaye Abdou Abdou Latif Coulibaly Abdoulaye Abdou Latif Coulibaly qui a voulu justement faire de la politique mais qui n'y est pas arrivé véritablement euh, euh, au niveau de Sokone et, et qui n'a pas réussi justement sa carrière politique mais mmh. comme il est aux côtés du président Macky Sall forcément il doit pouvoir continuer à bénéficier des largesses du pouvoir je ne sais pas Abdou Latif Coulibaly ce qu'il pourrait euh, avoir comme euh, que ce que Macky Sall man xaw ma Macky Sall lan la ko mën a lan la ko mën a euh, lan la mën a apporter man au jour d'aujourd'hui Macky Sall euh, parce que bon bah déjà il est, il est malade Euh, euh, il a vieilli euh, il n'a plus la sa crédibilité d'antan maintenant est-ce que jusque dañ jëluñu ko noonu rek pour garder ko parce que Macky Sall aussi ça lui arrive de faire ça jël nit teg ko ci wetam juste pour le neutraliser définitivement mmh. mais il est évident que ni tentation yi mu ko bëggoon defloo au niveau de Sokone pour mu génn ci pour mu essayer d'apporter quelque chose au niveau de son coin bi nga xam ne moom mooy Sokone et puis mu doon les bénéfices du président Macky Sall Euh, euh, ça n'a pas marché on le sait très bien donc euh, il est là aux côtés du pouvoir aux côtés du président Macky Sall je crois que c'est le nouveau porte-parole de la présidence de la République bon ben il pourra certainement en tant que en tant que donc donc donc donc donc donc communicant en tant que professionnel de la communication je crois qu'il pourrait faire ce travail-là maintenant est-ce qu'il aura la crédibilité est-ce qu'il aurait la crédibilité nécessaire pour justement porter la voix de la présidence de la République parce qu'à l'écouter mm-hmm. on, on se rappelle tout de suite de de de de ce même personnage d'avant euh, qui justement défendait urbi et orbi justement les intérêts des populations mm -hmm. ce qui n'est plus le cas aujourd'hui donc mm -hmm. forcément je ne pense n'aurais jamais mis euh, si euh, j'avais été le conseiller fantôme de, du président de la République je n'aurais jamais mis Abdoulatif Koulibaly mm comme donc conseiller ou, ou porte-parole de la présidence parce que c'est une question de de crédibilité c'est une question de d'élégance c'est une question de de de de sympathie vis-à-vis des populations et justement cette sympathie elle l'a perdue chez les populations. Mm. mais euh, euh, Sow Poulo man dafa am loo xamante mm. ne. waa ñëwal ci ci ci ak. Mm, Thierno Thierno Alassane Sall mi nga xamante ne wax na ci waxu pétrole bi tout mhm. ça ak contra yi ñu mhm. jot a mhm. ñu gis ne tey ak remaniement bi euh, le chef de l'État mu changé ministre de l'énergie indi fi keneen ndax kooku am na sañ-sañ daal di euh, xoolaat encore carte yi defaraat euh, contrat yi maanaam renu xoolaat contrat yi nu mu koy defaatee changé indi benn kii marché ba nga xamante ñoom dañuy sëqal liggéey gi mais xam nga dafa am na sañ-sañ boobu. Euh, euh, euh, oui certainement mais chez le président de la République. Mm-hmm. mais il est évident que ni état dafay jouer un petit peu souvent la carte de la de la de la continuité am na yoo xam ne boo ko signé ak réew c'est des contrats qui sont tellement verrouillés que ni même bu fekkoon ne beneen nguur sax président mu nekk fi toujours et qu'un autre ministre remplaçait le ministre d'avant qui avait signé mais que waxuma sax loolu mais même bu beneen président ñëwoon sax contrat bi xëy na du mën dara dépend du type de contrat ça dépend de ce qui a été mis à l'intérieur des clauses qui ont été émises justement euh, euh, donc dans ce contrat là yëpp mi ngi dépendre mais xam nga c'est très difficile de le savoir euh, ou de répondre à cette question parce que en général l'absence de transparence ci dëkk bi mooy def en sorte que ni doo mën a wax parce que xamuloo véritablement lan moo nekk ci biir xam nga bu fekkoon dans les grandes démocraties bu ñu bindee secteur mais léegi nii ce serait très difficile de répondre à cette question parce que euh, véritablement on ne connaît pas le contenu euh, de ces mm de mm-hmm. ces genres de contrats mm-hmm. je sais euh, pardon mm-hmm. la man dafa am aussi loo xamante ni moom Thierno Alassane Sall daf ko wax mu jaaxal ma lool mu ne nous avons un système mafieux où c'est la loi du silence et du plus fort qui règne mu mel ni dafa nekk loo xamante ni sax daanaka dafay rejoindre un tout petit peu ay propos yoo xamante ma jaaxal dans tout ça mooy pourquoi il a choisi de dire ça ci ci moment yi nii pourquoi lorsqu'il était au sein des choses waxu waxu ko au sein du gouvernement <laughs> pendant qu'il supportait encore euh, je le répète j'aime bien ce terme urbi et orbi le président de la République euh, moment boobu euh, je crois que il ne faisait pas que s'abstenir même et d'accepter les décisions du président il défendait les décisions du président donc loolu rek ma je ne sais pas ceux qui lui tuuti vaar. à un moment donné. moom Thierno Alassane Sall je pense que c'est un monsieur qui est extrêmement honnête mais à un moment donné il, en avait marre de continuer à être malhonnête et il est parti. <laughs> c'est tout il est honnête euh, dans sa nature il a a essayé de jouer un jeu et, ça ne lui a pas réussi parce que parce que dafa dafa tenir tenir le coup ba sonn et eh eh ben finalement mu mu parce que évidemment il a même essayé de jouer parce que la comédie parce que moom boobu léegi nii défendre yëpp ça veut dire que aujourd'hui gëmu ko parce que rappelez-vous que ni quand même si contre l'optimisme bi mais Thierno Alassane Sall a toujours défendu le président de la République et sa politique justement euh, par rapport aux, ressources pétrolières de ce pays même à la distribution des puits du pétrole lépp da ko doon défendre alors maintenant que il est parti moo tax gis nga àdduna toujours da def ndànk et puis euh, bu bu bu di euh, calcul des fois mën na la a mel a mel waxal li a wax wax boo mënatul rek retire toi <laughs> Cheikh Tidiane Gomis parce que si tu continues di défendre ba parce que bis dina jot nga nga peut-être comme am comme mi man dama gëm ni c'est un monsieur honnête mais il a joué le jeu il a fait sa comédie dans dans cet étalage gouvernemental là pendant un certain temps et il s'est rendu compte que mbir mi mënul continuer et il a jeté l'éponge tout simplement maintenant problème moom mooy euh, euh, autant on peut supporter que ni on peut penser que ni c'est monsieur qui est honnête mais autant on peut se demander mais est-ce qu'il peut véritablement être crédible parce que tey nga ne timis total bi moo gën a grave timis mais mais mais bon c'est vrai qu'on n'a pas le temps ici de s'élargir là-dessus mais mais c'est évident que monsieur monsieur Thierno Alassane Sall total total a perdu de l'argent ci ci ci ci ci ci kii parce que en réalité Thierno Alassane Sall dafa am ay puits yoo xam ne dafa bëggoon ñu téye ko parce que ñoom moom dafa waxoon ni dafa am ci gàttalan parce que mënuñu wax lépp. mais en lu ma wax rek am na. même donte gàtt na sax quoi parce que mënuñu wax téléspectateur yëpp parce que le temps ne suffit pas. mais mais mais yi dafa am ay puits yoo xam ne daf ko téye woon. yaa ngi dégg mooy Kayar ak euh, ak zone nord bi zone nord bi parce que dafa ne ak zone sud bi mooy côté euh, Sangomar wetu Kaolack bi ay ay ay teen la quoi léegi teen yooyu ci gàttal encore une fois euh, teen yooyu dafa dafa dafa moom dafa xalaatoon ni dafa bari pétrole bari dafa bari pétrole dafa am pétrole am gaz mu yaakaar ne nag ci diggante bi entre ñaar yooyu Kayar bi ak le sud mooy côté côté côté côté Saloum bi mu yaakaar ne si digg boobu comme ci kaw am na ak ci suuf fii dafa war a gën a bari ci diggante bi quoi mooy digg bi yaa ngi dégg mu ne mu ne fii dañ koy téye léegi kenn ko joxe nan dañ koy nangu bi ñu ko nangoo nag Macky Sall jël décide décidé ni da koy jox total mais bi mu koy jox total total moo jël risque dem vérifier ubbi ubbi dem teen jël ay moyens dem vérifier ndax loolu ñuy xalaat di ko njort am na wala amul mais évidemment total a mis plus de cinquante milliards la dedans te bi ñu ko si dugalee yàlla rek a tax ñuy wax Sénégal il faut ñu xam aussi bi ñu jëlee cinq total bi ñu jëlee cinquante milliards dugal ko ci biir euh, pour faire ses recherches ils se sont rendu compte que foofu amul dara donc Total ci yoon Total a perdu plus de cinquante milliards. joxaat nañ ko nag puusalaat nañ ko pour mu demaat wutiwaat gëstuwaat ci yeneen i zone un peu plus loin mais euh, boobu tamit Total moo nar a génne génnewaat xaalisam loolu il faut gars yi xam ko. fii Thierno Alassane Sall xalaatoon ni waruñu ko jox total parce que war nañ ko mën a téye après ñu exploité ko suñu bopp mooy digg bi parce que dañu yaakaaroon ne nord bi Kayar bi comme am na sud bi am na mooy côté san euh, côté euh, Sangomar euh, côté Kaolack bi noonu Thierno Alassane dafa xalaatoon ni digg bi ci digg boobu noonu am na far force pétrole parce que comme nii rek Cheikh Tidiane ci kaw am na ci suuf am na donc digg bi forcément moom pour moom day am ci gàttalan ah pour sénégalais yi ñuy déglu léegi comme digg bi day am moom pour moom da ko bëggoon téye à juste raison si si je pense waaye Macky Sall nee na moom neneen lay defee total la koy jox. ñu forcé ko Thierno Alassane Sall Thierno Alassane Sall ne lii kenn waru ko jox total parce que dafa bari pétrole parce que dafa bari gaz. finalement total bon Macky Sall mooy décidé décidé ni bon dinaa leen ko jox mais Macky Sall décidé loolu total jël xaalisam plus de cinquante milliards dépensé ko ci biir bi ñu ko dépensé wax dëgg yàlla ils ont pas trouvé ni du pétrole ni du gaz donc ils ont perdu. xaalis boobu mais ñoom seen liggéey mooy loolu dañuy risque jël ay risque waaye bu affaire bi génne foofu lay problème bi nekkee parce que euh, bu ñu jëlee risque ba dara génn foofu lañ ciy profité wee léegi foofu la population bi ñëw naan non ñu ngi jël suñu pétrole mm-hmm. mais ñoom population ñoom ñun amuñu possibilité dem wëri pétrole bi mm-hmm. par contre quand on met l'argent euh, jël risque bi gisuñu fa dara ñun ñooy perte mm-hmm. waaye bu ñu si gisee dara nag euh, seddo bi nii ak nii ki lay demee yenn saa yi ñoom ñu gañe kii la rek loterie la yenn saa yi ñoom ñu gagné yenn saa yi ñoom ñu perte comme pour ce coup-ci donc je n'ai pas compris pourquoi mu ne total contrat total bi moo pire que contrat Franck Timis bi j'ai un petit peu du mal surtout que Franck Timis deful dara moom moom dafa dafa jël ay bagages rek def nekk ay intermédiaire jëlaat jaayaat et ça am xaalisam dem toog jàpp ñàmburam mhm. yaa ngi dégg alors que total ñoom dañu dañu dañu risqué euh, euh, fi nga xam ne moom la Thierno Alassane Sall doon bañ dañ ko risqué et puis ils ont perdu joxaat nañ leen i yeneen i position pour que ñu dem seetiwaat ndax foofu mën na am euh, pétrole wala déet. ko jox mais état moo leen koy mën a jox forcément mais ñoom ñooy si dugalaat seen xaalis pour faire encore des recherches mais pour ce coup ci là pour coup bi ñu leen njëkk jox bi nga xam ne Thierno Alassane Sall boobu la doon bañ mm-hmm. parce que dafa xalaatoon moom Thierno Alassane te am na dara te dañ ko war a téye mm-hmm. pour que après ñeneen bu ñu amee xaalis mm-hmm. ñeneen ñi bu ñu joxee suñu xaalis ba pare loolu suñu bopp Thierno Alassane Sall loolu la waxoon waaye yàlla dafa def ni Macky Sall du defee noonu nee daf koy jox Total par force mooy décider mooy président de la République Thierno Alassane Sall démissionné hmm. waa Total ñëw ñu signé leen contrat bi ak Boun Abdallah Dionne parce que Thierno Alassane Sall dañ ko démissionné la tout de suite jël euh, poste ministre bi ministère bi jox Euh, Boun Abdallah Dionne en tant que premier ministre pour mu gérer ko parce que le gars Total était pressé il devait partir donc il fallait que ñu am un ministre buy apposer la signature du premier ministre avec la validation du président de la République xam nga damay indi yow sa transparence sa transparence dama koy indi waaw xam nga lii boo amoon transparence au niveau étatique lii yëpp day leer waaw waaw mhm. yoon wala mhm. nag leçon la voilà non li ma li ma gàttal nii nii. doo dégg ma la c'est beaucoup plus compliqué nag. leçon la leçon la mm. pour ëllëg. Ah, euh, au niveau étatique. ak mm-hmm. képp ku yore ab structure lépp. boo defee transparence bu boobaa euh, Fatka dina xam. nu muy jugé. Euh, Salma dina xam nu muy jugé. waaw Mahmoud dina xam nu muy jugé. ça aujourd'hui le d'accord tout est question de transparence alors ñu daal di jàll rapidement ci leneen direct news mhm. Sopoulo mhm. mhm. alors Maki Mimi je t'aime moi non plus. <laughs> c'est une chanson française le titre am na benn waykat tubaab. alors ñoom am euh, je crois que se sont aimés. Mm. ils se sont amourachés. eh ben. ils se sont séparés parce que sans doute sëy dagan na waaye tas aussi dagan na la vie est la vie est faite ainsi li ma am envie laaj la so ko la mooy est-ce une séparation définitive parce que c'est pas la première fois que m ñaa ñu séparé wu ah sëy bi tasoon na ñu ñu kiiwaat ñu sëyaat mais fii nit ñi takk na fi jabar mhm. euh, bàyyi ko toogaat non non non kii moom mooy sama seytaane mooy waax ah. ci man ma dellu siwaat ci est-ce que mhm. Mimi mën na nekk seytaane Macky Sall mhm. xamal na ko de hmm? dama dégg ah dama dama tax dama tax <laughs> <laughs> euh, loolu mën na nekk euh, je sais que euh, jabar bu yàggee ak yow xam la xam say yooyu noonu say say affaire xam nga euh, boo ko bàyyee euh, boo wutee keneen di nga gis différence bi. Mm-hmm. est-ce que dina gis différence bi par rapport ak et puis je pense que surtout ki mu ko jëndee ki mu ko jëndee Macky Sall. Euh, Idrissa Seck pardon dama ko mënul waat rek. Mm-hmm. mais dama gëm ni Macky Sall nax na Idrissa Seck te bis nag dina jot. Mm-hmm. li ma wax ne ngeen dellu si waatal ma ko. tegalaat ma ko vaar sénégalais yëpp ni xam ni. Alioune saw waxoon na ko Macky Sall nax na Idrissa Seck Macky Sall moo mën Idrissa Seck Macky Sall est loin d'être naïf Idrissa Seck est un monsieur extrêmement naïf Macky Sall mooy ki nga xam ne dañu xalaat ni dafa nuroog ku intelligent wul alors que dafa intelligent mhm. Idrissa Seck mooy ki nga xam ne dafa nuroog ku intelligent jàpp leen bu baax li ma leen di wax mhm. alors que intelligent wul <laughs> je vous parie une chose te bis dina jot dama ragal yàlla moo tax mënu ma ko waat mhm. mais bis dina jot ngeen xam ni Macky Sall nax na sa Seck. Mhm. d'ailleurs Moustapha Diakhaté mu ngi koy wax parce que nee na Idrissa Seck est pris en otage par <laughs> que Macky Sall bravo Rewmi Quotidien. Euh, dina dina dina euh, euh, Moustapha wax na dëgg mhm. Euh, Idrissa Seck gisatul woon dara lu dul régler ay problème am. d'accord. Mhm. lii dañ ci dañ dañ dañ. alhamdulilah nañ ci teg baaraam sant yàlla ak yonent bi dañ ci teg ci baaraam ah. dañ ci teg baaraam ba ba ba suba incha allah soo pula. yal na la yàlla sàmm amiin ñu bokk lépp incha allah cant ak ngërëm ñeel na la. di ci profité di nuyu maman Henriette depuis Alfortville la siste Néné Sow. Hmm. depuis vitry sur ak ñoom Awa Hélène sama sista yooyu la dina ñaanal jàmm ak salaam donc dañuy daal di ñëw léegi léegi ñu jëli suñu rubrique people. voilà ñu daal di bàyyi rek ah.